présidence de la république ma ñëw Macky Sall mooy président de la république xam naa ko bu baax euh, ñu affecté ma fa gars yi am na ñu nga xam ni euh, meluñu président Macky Sall ma àgg ñu ne wooy nañ ko delloo fonction publique. Hmm? wallaay parce que jàpp nañ ni bon opposant la. Hmm. voilà waaw maa ngi woon PDS mi ngi woon PDS bi ma demee ñu affecté ma fa moo tax président Macky Sall ma jàpp ko aussi. Hmm. bu ñu ñëwee ñu bëgg ma affecté yow delloowaat ma fonction publique mu yëg ko mu yëg ko mu oolu ma. ma ñëw mu ne ma alors tu as terminé tes études encore que beneen lii mooy am na benn moment ñu bëgg maa dàq aussi anam ñu ma bëggee dàq. bu ñu ma bëggee dàq mu bi ma ñëwee ba ba ma ñëwee mu wax ma mu ne ma toppatool sa njàng bi te peut-être sa njàng parce que tu as un bon niveau ça te permet de bi ñu mu yëg ñu ma affecté ñun ba mu woo ma ma ñëw. mu ne ma foo nekk léegi ma ne fii la ma affecté mais sa gars mu ngi ma delloo fonction publique il a refusé. cest bu fekkee ni sa njàng moo la fi indi sa xam-xam tu vas rester ici. boobu yaa ngi opposition j'étais dans l'opposition mm-hmm. et ça quand même c'est un acte fort. et ce jour-là la jël acte nommé ma conseiller technique. Mm-hmm. parce que boobu j'étais là j'étais chaque jour ñu ne ma demal suba ginnaaw suba yóbbu nañ la fi <laughs> may taxawaalu rek mais bi ma gisee ma toog mu def ma conseil technique boobu nag bokk na ci. Mm-hmm. moment yu nga xam ne yu ma réfléchir ma ne kii. man su ma nekkee di opposé wu ak frontalement di ci mbedd mi dafa fekk ni man am na lu ma dese. booba dox na sama yéen. non doxul sama mbay. Ah, si si si boobu nag àddina du benn non non non àddina àddina aussi àddina aussi da ngay xool nit muy posé wu. ak ci muy posé président nag dafa kii ci politique non non kii na ko bu yàgg. bon élément